naa fi ay presque quinze ans daal marché bi Colobane la nekkoon après mu ñëw fii man ci biir laa njëkk a jaayee. waaw maanaam am na fu ñu defaloon mais léegi dañoo dem ba ci biir ñun ñëpp xa ñun xajatuñ ci biir daal léegi nag ñun ñu génn ci mbedd mi di fi jaay si man moom mbedd mi fii bu doon maire bi maire Fatou Faye man kenn njëkkuma ci mbedd mi ci booy man maa fi njëkk parce que nguuru Abdou Diouf fii la ma fekk. lii du yoon tey du yoon ëllëg du yoon ginnaaw ëllëg ñun ñi nga xam ne ñun ñoo dëkk fii syndicat mënatuñu nooyi mënatuñu ah mënutuñu nelaw camion yi guddeeg bëccëg salte yi yooyu ah poto poto yi. fi mu toll nii ñun dañoo bari wàllu ndax kaw-kaw yi rek ñoo daan jaay ci marché bi mais dañoo dem ba booy taawoo nekk waa koñ bi yëpp génn di jaay. fii ñu toog kay moom amul kër gu jaay ci syndicat bi moom. cent cent vingt laay fay juuti chaque jour. bi fii moom ku nekk sa intérêt la fi tax ñëw moom man moom sama intérêt laay garde moom. moo tax ma génn ci mbedd mi. vraiment nos enfants ne peuvent plus sortir mënatuñu pour nga génn sax nga jaar sax balaa ngay pour am problème pour nga jaar sax dan la ci saaga xat la ci ca yow boo laalee yëpp jàmbur ñu dal sa kaw ah boo buggee wax li ñu dal sa kaw. lor amu fi ndax kër yi fi nekk waa syndicat ñoo ko luyee ku luyee cib kër moom am nga droit sa buntu kër nga toog fa di jaay. proporteur yi mooy suñu problème parce que ñoom euh, fii la ñëw baare ñëpp xam nga li ma wax décharge fii bàyyi fi seen salte gis nga bu fekkoon semaine bi semaine bële passé avant ñu def lii lañ njëkk a def mooy déjà. yëpp boo fi ñëwoon doo fi mën a taxaw yow ndax salte ak euh, luy xeeñ tellement que y avait beaucoup d'eau yoo xam ne yi mu ngi woon fii fii lépp dañ ko fattoon ak seen mbalit yi seen mango yeeg seen màdd yi dañ ko fatt euh, rigol bale dañ ko mujj débouché yaa ngi may dégg biñ ko débouché la ko ba mu set tey ji mën nañ fi taxaw ñun tey di mën a wax waaw léegi waxante te yàlla tax oto yi ngay gis ni ñu taxaw ci kaw tali bi fii fii di indi mango bi nii taxaw ci tali bi oto yi ay vingt cinq mille trente mille la ñuy fay yi moom la ñuy fay maire bi def yëpp arrêté yi ñu def yëpp amul benn suivi amul benn suivi boo xam ne parce que bu doon am suivi euh, du demee nii parce que ñun bu ñu demee bay érigé ay barricades déjà rek c'est parce que amatuñu pexe ñàkk pexe moo tax ñu def lii ah pour camions benn bañuy tufee dugg parce que non seulement doo nelaw guddi gi ay 4 heures yi ñëw di gaare si wala ñu ñëw di de démarrer seen vrombissement yeeg seen kii moteur yi saa xaw ñu tànqal. même bu nu amee gan bu waree ñëw ah wara a ñëw ak oto mag yëpp amul sax fu muy duggee fii pour mu gaare pour mu ñëw seet si la ah nga nekk sa kaw kër di fay nekk un bon locataire mais y a le droit de locataire quand même am na droit am am na repos bi nga xam ne war na ko am mais guddi bi nga xam ne doo boo ko bëggee reposer doo ko mën ah camion yi sa kaw. ah guddeeg bëccëg a 3 heures du matin camions yi dañuy ñëw ah les gens sont en bas les dockers sont en bas ñi xam ne ñoom ñooy wàcc camions yi duñu respecté kenn ah nekk di yuuxu ci guddi gi ah non non vraiment on ne comprend plus rien. am na ñu fi dëkk ñoo xam ne nii moom liggéeyuñu sa waay bëbee ak sàcc yi fi lañ fi nekk même tay tay bërki dem am na koo xam ne jàpp nañu ko fi yóbbu ko police te ci koñ bi dëkk. ñu nangum sàcc ñu dañuy daan suñu doole rek. tali bi léegi c' boo xam ne bii mal utilisé parce que tali bi léegi c' est non nul et non avenu tali bi amul njëriñ tali ñu def fii amatu fi mu nañ ko waroon bàyyi ak suuf sax moo gënoon. boo amee sa oto ci mbeddu syndicat bi la taxaw léegi fi mu taxaw noonu ñun fi la ñu fekk bagage ba di ko jënd léegi mbedd mi pour oto yi ñoo tax oto yii camion yi ñoo tax maanaam defuñ ko tali boo xam a dikk pour oto yi syndicat ñoo a fait il a fait des arrêtés interdisant les camions pour ñu bañ fii di taxaw parce que le syndicat ne c'est pas ici le syndicat c'est là c'est pas ici loolu que ça soit clair. ñun nag moom marché bi bu xëyoon jógee fi tey ñun dañu luye dong dëkkuñ fi buñ xëyoon buñ ko yóbboon Kër Massar rek fuñ ko mën di yóbbu ñun dañuy dem fekk ko fa dañuy luye dañuy daan suñu doole fuñ ko xëyoon toog buñ ko taxawaloon suba suba ñu xëy ànd ak ñoom. Sénégal foofu dem yaa ngi gis pël Fuuta yi teg seen i a wat ci réew mi. kon kay ñoom ñi teg ñoom ñi nga xam ne ñoom ay étranger lañ am doole di teg seeni i bagage ci pegg trottoir yi ñun ñuy dëkk ci réew mi kay bu ñu neexee teg ci digg tali bi jaay lool kay moom yoon la man jàpp naa ko ni yoon la. dëkkandoo dafa am àq te dëkkandoo ni mu amee yàq bu ko nit ñi xamoon defe naa ne dinañ jéem a seet ni ñuy dëkk ni ñuy maanaam defee ak dëkkandoo yi parce que lii nii bu ñu ko defee nii gisoo oto yaa ngi nii oto yu ndaw yi dañuy jàll oto bu ñëw bu ndaw bu ñëw da nga jàll mais moom dootu fi jàll. te nag bañ ci ba noo fanaane parce que camion yi moom dootuñu fi dugg moom fii. mais jàkk jaa ngi nii boo bëggee wàcc guddi mais suba teel bi pour dem julli ay quatre heures du matin da ngay ragal parce que da ngay naan su ma wàccee ñu agressé ma bon ya a des y a yi nga xam ne pour ñu ñëw julli si fii ci jumaa ji mais la preuve en est fajar booy ñëw di julli si doo fi fekk même pas une vingtaine de personnes pourquoi parce que les gens ne peuvent pas venir ragal nañu salté bi. ah doo sol yére yu rafet ngay wàcc naan da ngay julli di dugg ci poto poto yi kenn munu ko. annoncé nañ ko ba tey à chaque fois ñu naan syndicat bi lay jóg te du mës a jóg wala bu est-ce que ñun dañ fekk buy jóg ñun. dañ ko fekkee je sais pas parce que actuellement ni on dit que am na li leen fi samp yaa mystique a ngi fi lépp a ngi ci biir. franchement on demande que vraiment le maire Naka essaye de nous d quand même. jéem ci taxaw quoi vraiment jéem a dimbale askan bi xale yaa ngi koy jéem nag ñu ngi xeex ak waa camion yi mais bu leen jàppalewul mais mais ça va pas aller mu ngi nii en quelque sorte am na fu nu fatt mais n'empêche que camion yaa ngi dugg ko dégg bëccëg 24 heures sur 24 heures camion bu génn beneen ñëw remplacé camion bu génn beneen ñëw remplacé mais quand même vraiment c'est pas une vie. avant ñu dindi lii ñoom nañu jël seen disposition ba ëllëg du am a soxla yëfi ku nekk nga jox ko cër xam nga lu ma bëgg nit boo ko bàyyi lenn danga naan ko jàppal ci lenn man mi ngay wax ni chauffeur camion la ba ma demee ba oto yu doxut laa ñëw ci syndicat bi ni daan sama doole di fa am sama teraanga xalaatuma jël yëfi jàmbur liggéey wàcc dem ñibbi loolu laa xalaat